pour mu dox mooy il faut ñu am une nouvelle mentalité il faut ñu am une nouvelle culture ñu xam ni réew mi du réewu du réewu jomaay président jomaay fay déedéet suñu réew la ñu ñëpp ñoo ko war a jàppale ci li mu wootee jub jubal jubbanti mais jub jubal jubbanti comportement la jub jubal jubbanti attitude la ci suñu diggante ak espace public yi ñu bañ a taqal wala su amee ku taqal ci boppam ñu man ko for defaraat jikko yi defaraat toogaay yi bàyyi mbedd mi mbeddum buur la loolu moo tax ñu indi la corps des volontaires yombul ndax am na ñu fi doon jaay peut-être seen jaay taxaw na mais espace public espace public la marché marché la mënuñu jël promenade bi ñi def ko ab marché loolu mënta nekk loolu suñu responsabilité la